Thank you. ma sañ a toog waaw. dama ma jaaxal jaaxal yi. ba mën a noyyi nee na. ah ma la. faalaw ma la comme moom xaar rek aw tigi bum. ma ne daa toog sa toogaay. faalaw la ma. faalaw ma la. kër gi de man maa ko moom kër gi am na xam ne tekku la dara si kër gi kër gi maa ko moom maa xule woon ak maçon bi amo maana ñaata maana béton ñaata maana pierre ñaata maana ciment ñaata waaw waaw sab ciment laa am waaw sib ciment laa am ah, waaye koro yi fi nekk nii ak peinture maa tax mu am fi ah ba pare koro yi bu yor sa tur rek ba pare koro yi koro yi koro yu mën a ma ne waaw waaw dimbali ma aw ba xëy toogal fu toog ikkati na ma yi bi doon nga xaw ma na maa nuróon o nekk fi duma ba garee ma ne ko li laa dóor rek mu ngi ñëw kon am na la ma war a mën a dóor fii ah. fii dara jaaxaruma fi kër gii noonu ñaari siyam koj ah. fii kenn du fi dugg amoon na si de kenn du fi dugg bii kër kenn du fi dugg maa ngi juyaale maa ngi juyaale doo ko Ah. C'est ma maison, c'est ma maison. Ah. Ici, c'est ma maison. waaw bala neex a wax ka. waaw bala kay jigéen du fi dugg ka fi ji dugg mën la dóor bay dóoraale la. ah waaw baax na. ah jigéen du fi dugg waaw loolu la noo xaar. wax ji wax ji nii loolu la noo xaar. wax ji nii am na am na dem mbaaru géej ma. mbaaru géej waaw ndax moo moo sab jëmm. waaw baax na def la dara. goru la yépp la mbaa goree sax am. wante def la si lenn. ba xëy rek na mbaaram géej yor kuru sa sab socc rek. dee ñaaw doxal dem xam naa ñi la duggaat si aw day xamul fi ñu jëm wante ka xam fi ñu jëm du dugg si aw aw mii dama si wax sax يا رمضان محلاها ايامك باركها المولى وادامك الجنه تعطر انسامك ومحلى صيامك محلى قيامك alaaji ak moom. boo dee génn na tàggu ma sax. ah. génn na tàggu ma sax fa mu dem. ah waaw. Ah, moom moom mu joxoon rendez-vous tey fii rek pour ma ñëw fii lu am loolu waxtaan. yéen a yem yéen ñaar yéen a yem maa tam mu ngoog. see dem rek ba yàggee dinaa ko ñeew. Saly wax in daka lëmës wax in daka bandaas wax in daka mesuré in ko nombre bi mu soxla. seetlu na mala ne fi taxawé ba légui ni sa kanam a ngee saxaar mel ni xàmbab ipons dimbali mala ma distan aw aw wax jaag yena yam la mu dugg aw ak si duggal man mimi? aw mi génnew mala si aw da jaag dugg ak si duggal man ka wat di nga bëgg a ak soccu bima soccu ni fës ne soccu ni da melni woru la woru woru la ni ba woron dina tal lenen lanu ñëw fii wala daa nga sant sa jëkkër euh, ji xamante ne nii moo sa xaritam jëkkër di la laaj. man dëgg rek la maa wax ma koor gi dara gis lenn la kaa yàq. ah awa jaaga yéen a yem. ah yéen ñaar yéen a yem te la mu dugg ak sa duggoon. gumba neex na baal jant li ma wax. ah mais ak ah, ak ah, samay tànk waaye da dox leen dem. gumba neex na baal jant sonal dox leen dem ki naa kër gii moom la pikka peel. kenn du fi duggaat. bu soobee yàlla nun waxuñu ko fi dugga de. man ne kenn du fi duggaat dama wax ndax yéen a ngee dox la ñëw. yéen bàyyi leen benn mereen ne am ka fee dugga ka fi dul dugga. ah li jëntu ma lool. yéen ñaar te yéen ah yéen ñaar yéen a yem. gumba neex na baal jant solo. waaw ayca. waaw boo ko gisulee daal ñu ñëw na ma fi. man mi mii kon du ko dégg. waaw ndax yéen a yem. waaw waaw xam naa. waaw baax na ñëw fi dama bëgg a rey ne wa. dafa seeni wax yéen jàppal seeni wax face àll bi ñëw di ma waxaat la ne la mu dugg suba ba ngoon xam naa ko يا رمضان محلاها ايامك باركها المولى وادامك الجنه تعطر انسامك ومحلى صيامك محلى قيامك يا رمضان محلاها ايامك باركها المولى يلا ركك السجن jego nene mai samo wahna nda ha wor wala ali pol ya raka da makai kurpai ba ba ba ba ba wa wa wa ba bajak wai ayo ai Allah ka def ay sugo ja way togala way wa ma ngi fi dëkk bi tax mboye koor ak ren gi ci koor ak ren gi wax ana di de bu ma ci amé keesu sabax na kees man sañu sañu laa la am 15 nag u la bàyyi. 15 15 man sañu laa la am 15 u la bàyyi sañu la ka. 15 baax si amee baax na am na faa toogloo sa aas ba fa lii 15 baax amee baax na. ay mënu la nekk de. ah kay. waa seen mbaaram kanilaay mi den ko war di faraat de. mbaar mi day. ah gars yi gone yi ah man daa. waxuñu la si jëm ah waxaguñu la si jëm de ñoom daa ah, rawante ne rawante bi neex na daal waaye mbaax maa ngi dal. waaw hmm. ba léegi nii daal hmm. ak ah, ah. nit nag ab action en daga àggali ñoom daal ñoom ñoom duggin rafet na ñoom duggin moom rafet na waaye action songaan ñoo dañoo war war a àggali action yi dañoo ko war a àggali de nu ngee dee heure bi daa war a toogu xool gaal yi waaw jaak tey jii xelaan na ma ne am na ma aw na ma aw na ma naxar aw naxar am na ma kam te waay faa jëlati naxar waay sunguña waay jaag sa kër la ma jóge aw man daal njam teeri nekk ma ani alaaji jaag mu xamal mane ne dem na te mu sëf ma lépp xamal ma waaw laa yéen la préparé xam na ma ka waaye fii ak nit du fi dugg patati patata man da nga sa dex ga man man lan la noo lan la noo waaj nu ngee waaj moom da xamul ne nu ngee waaj tay ah daa ngee waaj yee su tay tay daal tay daal pourtant moom pourtant moom pourtant moom pourtant moom baaxoon na de mbaa dëgg yaa ah waaye ni mu nekk mate yi ka nekk say mate yi mu la jëm sa biiram nekk aka xam ah kay ah, ah, ah te guni domi emetan mi xama mm-hmm. doomi emetan xama doomi emetan lay wax mm. e dina ma si set no guni ba ma labat fan mm. ya. déedéet waay gone bi jox na ma boppa gaa xamante jox boppa gaa xamante waaw ah ah foog nu àgg sa guru rek parce que gis naa foog nu àgg sa guru waxtaan sax wax dëgg sa la ñun doon xam na xalaat ma ne waxtaan sax wax dëgg sala la bëgg na malaa laa xamal leen laa xamul gis nga ka jigéen rek si rek rek rek rek si kër waaw laa mën a xam ne moo mën a sëy dëgg waa il faut u seetal ko wajja ah. man doon na ma ko faral waaye faralutuma ka dem na ba dama iñi. is naa is na mu dima joxar bi. te man du ma jëkkëram. xoolaloo xaritam jëkkëram la. xoolaloo. xuloo baa xuloo moom la si moo yoon. fa moo jëlee barke. xam moo jëlee barke. dakaa seet rek mais du am. allah sa jëkkër sa jëkkër. ba ñëwee daa war a gàttanu. waaw waaw do loolay wax sibse. waaw gàttanu wax ja neex. waaw même ba sa poos di sul na wa ji neex. Ah. waaye nag wax amulaa wax ja neex amulaa gàttanu ma ni waaw doo seet si gune. waaw nii yaa gis ni dofuñu dara dofuñu baa ñu dugalee loolu deuxième position ñoo la gën a réglé montaat. man dama am la ma métti. ñoo la gën a réglé waaye bàyyi rek. xanaa ne gan ba ñëwee sax au moins. ah donte na du koor on remplace ah toogal. man man ay ah, man ay koor gi toogal koor ak ren gii maa jël may décision yi boppam. xanaa ba koor gi laa jeex wala ba jeexee. si biir koor gi la ma kasee ñam. waaw takka koor sax la mën a assuré bii koor koor kata takka koor. du doon dina am tuyaaba dina am yiw do fere fere ba mi do fere fere ba mi tandal ma rek eh, la nga jox ña dem pasta mi ñaari paquet gën ka bari ñaari xana ko gu ala ka tas ba pere de tas ba pere ma sungu la ma be ka tas ba pere ha hmm. ah, gune baba hmm. aram du fo ha benay muk ah, aram la tudde aram la gune gi tudde wa fehel nu dem fa nak no fa dem sungu lekki je gina fa dem si hana ba ya, jone fa dem si buir koor gi la nono dem si bir koor gi lan wara dem hmm. parce que ki ma gis ni tera leela carte gi Mm-hmm. moo la taxawam fi mu jëm nanu ko yoor yooral rek xam nga ndoxaan moom mën naa doxaan baa demee ba zëtam zëtam mën naa wàññi koor yool ab koor non daa waaw yoolu moom daxaa wàññi yool ab koor waaye nag takka rek takka rek moo kaa mën a faj kii ma gis nii salmata mi ma gis nii na nii mu mel ni ka maatu gécca waaw waaye man nag ñii dayaa suppi man daal dayaa suppi man barke yonente bi kii kii kii li ma xamoon si moom waaw dañaa or dañaa or dañaa or liggéeyoon yaxa nag dañaa yàlla nag yàlla na moo nu santaane nu takk ñeenta waaw ma ne ba nu takkulee ñeent sax nun fa nu jëm comme ñoom dayaa tool foog nga am ñoo tool ñoonu gën a bare ba joon yàlla tey waaw léegi nag te wasin woo jot ka jigéen ka ka jigéen ba amee semaine bi wu kóor balaa amaat yeneen ñeenti semaine waaw ñii jaat ñi wala kii jigéen moo la xam ne da tóol waaw foog ñu am foog ngeen nungoo ñaar ba ñetta ba ñeenta te yoo daala yoko hetu Seydina muhammad waaw waaw léegi nag ba demee ba ñoom ñi ñi ci dess nañ la yassé ah du suti de. ah man day dina ma tak aw dal xamal na ma la waaw dina nu fa dem en waxtaan. Mhm. gën kaa gaaw nu kas ah waaw lool kay mom lool kay mom moo la loolu moo la wax ji sax kenn duma ray dess des. tey xamal na ma xamal waaw xamal na ma la la ka wax. waaw say tank la ñaa jël. indi ka xoccim ndox mais duñu xoccim waaw eh, loolu tànk dala ki jax nuy tànk yi gis ah, naa nuy tànk mën naa laale dara lii lii lii xam naa ne ne lii mégob cigarette xaj na si foog ne ne am xama remarque dis ma xama remarque ah ah lii nii ba ko guni ñaareel jàppoon bu duwale si paan bu woon ridika ride waaye ma ñaa ma ñàkk a mbir maa ngi si <laughs> ñaareel sa ñaareel bala waaw waaw barke yére abe ñaareel tout possible <laughs> يا رمضان محلى أيامك باركها المولى وأدامك الجنة